Salut les amis de Baba Show et des Sport TV. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de des merci de des abonnés. Merci également Gaël de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Inbox sénégalais, fait folle maintenir 14 régions du Sénégal. Rouk Roukali, Gorgorali, Ninglen de Gaïofel, Ninek également au à l'hôpital et sécurité de février. Monsieur Brom Fogsen Bob Nuer Gam, Ninek Kassoyen Ramne aussi. Erreur judiciaire, Guinée de Fumon et Foyoub, Sun Brom Guinée Feu, Delawar Lensen, Yabotan, Nuit de Dois de Nos, Sun Brom Khadena Jennifer Dois et Gaël et On avance ensemble dans la magie de Babo Show et de Sport TV l'actualité en contenu gars yi actualité bi ñu fas yéene Les li nga donc Yevan Diouf mi nga xam aujourd'hui diggante Sénégal Que Pologne la que Lionel Messi Mais nga xam ne la li mu wax ci Lamine Yamal ñu fas yéene ko wasaare ànd ci ak yéen indi ci ay leeral lépp mu détail pendant ce temps là qui nga sa mooy tout Sagna la capitaine de l'équipe féminine de l'équipe nationale du Sénégal de football du monde, cette année, matchu Metz Monaco gis Krépin Diatta mu daal di ko jox mbayom Safietou Sagna également di ko xam ne sénégalaise boo Sénégal ah, Du di aussi une joueuse talentueuse n'est que du côté de la France du football. Pendant ce temps aussi, 39 matchs sans défaite pour le Bayard Leverkusen et Rabi Alonso. Laftiat, Laftiat. En tout cas, je suis Banyam défaite, défini Arsenal défaut, ce serait un phénoménal, hein, ce serait phénoménal. Pendant ce temps aussi, le duel tant attendu, Soubalé à Derby, diganté Manchester City, Arsenal, pour bien évidemment la place de premier en Premier League. Arsenal Fini qui veut conserver son statut de leader, City qui veut conserver son titre, Binghanel a gagné one. Dao, pendant ce temps, Javi, Mom, Nenadal, Gaï, Mounounio, Waka, changer avis, donc Javi ne va pas changer d'avis. Nenadal, fin de saison, dirait, dire, Inch'Arabi, des du côté du FC Barcelone, Loda, dit décédé et que nekk une décision de xam de mais pendant ce temps Amorim nag que le grandissime favori pour remplacer King donc Jürgen Klopp à la tête euh, de Liverpool même la gars ici, étant donné que Javi Alonso moom du côté du Bayer Leverkusen donc Amorim l'entraîneur de Benfica qui sera donc euh, publicité.

travers moom gars yi ñu seetaan ko monde 98 euh, dinañ ko xamé jëm si également ki xam moy Vinicius Junior mom nak néna na du weekend bi mais limu bëgg wax rek moy kone walum racisme et tout lu am la donc nit ñi peut être ñi may attaquer mais dafa nek lo xamné gaay du man sama personne rek moy déranger mais ñi nga xam ne am am couleur de peau yëpp ñooy déranger ki nga xam mooy également mooy Nico Williams gaay nak match contre Real Madrid du joué Atletico Bilbao xamal nañ ko na dafa am gañu gañu donc le joueur est petit frère de Iñaki Williams l'international espagnol Nico Williams nga xam ne yi Barça moo ko teg gët moom dafa am ah, li nga xam moy surcharge musculaire la gaay daal wax également donc aujourd'hui ah, donc euh, dit Ibou Sané wax actuellement gay ah, donc marqué na tay aujourd'hui un jeune très très talentueux à suivre wax et qui peut beaucoup apporter à l'attaque sénégalaise dans l'avenir mais boy bi aussi xamé il est d'origine sénégalaise également hein ah, Gomez hein aussi signé le premier contrat professionnel à Nantes c'est un joueur euh, sénégalais hein donc bo aussi mën la petite catégorie les U20 U23 parce que aussi Sénégal côté dañ renforcer wu en mixé comme une équipe nationale A bi entre euh, locaux et également expatriés Qui nga également Moye Yehvan Diouf Gay yi Diouf nak actuellement mi ngi réfléchir pour nous euh, jouer avec équipe nationale du Sénégal mi ngi xaar nag Aliou Cissé daal mais nak ki nga xamné aussi gay Moye euh, yayam yaayam xam ngeen yaayam dafa may origine polonaise ba tax na daal fi mu ne nii aussi ni koy gersu teg ko gët ah, pour le gardien aujourd'hui de Reims mi xamné xam donc Yehvan Diouf un excellent gardien am tour d'arrêt exceptionnel donc Sénégal war ci mën def parce que il faut aussi préparer l'après ki nga donc Edouard Mendy et aussi ki nga ñom Modou qui ont la trentaine et tout waajal également Yehvan Diouf donc un bon profit boo xam ne Aliou ko moom nag wax na ne mi ngi déglu wooguñ ko donc il est entre le Sénégal la France et aussi la Pologne ay origine yaayam wax naa leen ko donc un joueur excellent yoo xam Sénégal war na cee bàyyi xel lui aussi le cas de Lionel Messi la mi nga xam ne nag gars yi moom dafa wax ci Lamine Yamal ba mu wax nag c'était en 2023 la woon gars 2023 bi le daal di waxoon ci Lamine Yamal mu ne c'est un joueur boo xam ne nag ci ëllëg bi ci avenir bi mën na nekk jour boo xam ne dina ballon d'or bi loolu nag mooy la véritable version bi nga xam ne nag moom la ki nga xam euh, di euh, donc qui euh, dit Lionel Messi waxoon ci ki nga xam donc Lamine Yamal nee c'est un joueur boo xam ne ak potentiel bi mu amee tout mën na nekk le futur joueur yoo xam ne day xëccoo ballon d'or bi ak génération am et aussi nekk le nouveau patron du côté du FC Barcelone li ko nag mooy que ne jamono aussi Barcelone ñom niñ bëgg daal moy saison bi di ñëw jël numéro 10 bi daal di koy jox ki nga xam moy Lamine Yamal jox nañ ko fi ki nga xam moy donc euh, Ansu Fati gis ngeen ko dafa diisoon loolu ci mom ba mënta woon fatt fépp ah mujj mu daal di euh, yàlli ah Ansu Fati dafa mujjee yàlli dem di côté de Brighton mi nga xam nak Brighton sax Brighton ñu bëgg ñu aaral leen ko di won ndax boy mi ngon ci dynamique baax mais dafa mon gañu gañu loolu daal fi mu ne mo nekkon yi moo nekkoon information ñeen bëggoon jox c'est toujours un plaisir de vous servir di leen wax ngeen way di like de way di abonner on avance ensemble dans la magie de Baba Show et de sport TV su baaxee ci le bonheur suñu la gars yi